xam nga mbir de day toll noo xam ne euh, lépp lu lu yàlla di indi du jékki-jékki rek këpp ko da koy wutal ay wàccaay li ñu tuddee ay signal mm-hmm. euh, boo seetee nit ki bu fekkee ne te mm, président Macky Sall kenn foofu mën a kenn ëpp na ko information kenn ëpp ko ko sax mm-hmm. loolu mooy dëgg te askan bu ñu la jubloo danga koy yëg mais buñ lay wan gannaaw itam da nga koy yëg mbokki internet yi buur a ngi leen di nuy ah di leen ziar di leen ndokkeel ak faay mën a nekk waaye di leen waxit euh, déwénati ndax ginnaaw euh, julli gi jàll na ci jàmm ñu ànd ak yéen diggante daaw ba ren wax dëgg yàlla di waxtaanee jotaayu xam-xam ma di ci ànd ak sama xarit sama soppe góor yàlla borom xam-xam euh, sëriñ Fallou Dramé di sët sëñ Moussa Dramé borom daaru Pakacaar dama koy faral di wax rek ak ni ma koy waxee mooy saa bu ñu amee jataay mooy man maa ko garanti man maa ko garanti ba noppi ne leen wallaahi wallaahi te ñiy séq ak moom defe naa xam ngeen ci dara sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ndokkeel bàyyi nga la nga nuyoo ak déwénital ñi nga xam ne ñoo ngi la doon topp nag ci bii pro diggante daaw wala daaw jël sax ba ren. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam fa radiyallahu taala an il abdil xadimi riddan yasmulul ala wa sawil mahabba sëñ buur ñu ngi leen di wax yéen itam déwénati ñoo ngi ñaan yàlla rek eh, jaamu yàlla gii ñu bàyyeekoo muy tabaski eh, yàlla na yàlla def donte léegi na aada ji moo ci ëpp doole xam nga nit ñi noonu lañuy ñuy def daanaka jaamu yàlla yu ci bëree bëri daanaka fu mu ne aada ji moo ci ëpp doole mm-hmm. li ci am solo rek mooy pas-pas yi mm-hmm. ndax li am solo lan yanaala laahu lahuma wala dimauha walakin yanaaluhu attaqwa minkum yàlla nee na du solo si deret bi ngeen di tuur amulul ma solo wala rëyaayu xar mi mais ragal yàlla gi rek moo ci am solo pas-pas ba kon yàlla nañu yàlla nangul ñu ñëpp te may ñu ñu yàgg ko fekkee ay yoon yoon ci hormaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam barki Seex Xadim ñu ngi nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp rek di leen sant itam di leen gërëm di amaan mbégte rek incha allah. sëñ Fallou sama laaj bu njëkk mooy euh, mbiri président Macky Sall bokkoon nga ci euh, ñaankatu yàlla yi catégorie koon wax dëgg yàlla gisoo ñetteelu mandat am wala gisoo tey ak toogaayam ci nguur à notre grande surprise mu xëy def discours boobu jaar foofe nekkat wax dëgg yàlla mandat bi mu nekk te mu des juróom-ñaari weer moom mooy dernier mandat mu mujj. Mhm. waaw xam nga mbir de day toll noo xam ne euh, lépp lu lu yàlla di indi du jékki-jékki rek këpp ko da koy wutal ay wàccaay. li ñu tuddee ay signal euh, boo seetee nit ki bu fekkee ne te euh, président Macky Sall kenn foofu mën a kenn ëpp na ko information kenn ëpp ko ko sax loolu mooy dëgg te askan ñu la jubloo da nga koy yëg mais buñ lay wan gannaaw itam da nga koy yëg donc kon li am solo mooy taxawaay bi mu taxaw mooy bi nga xam ne ku ne war na koo saluer parce que mooy rek li waroon a am mm-hmm. ndax wala fi dañuy wax nag gor ca wax ja mm-hmm. te comme moom euh, wax na ko doyul mu bind ko ci livre boobu mm. Sénégal au cœur defe naa au mm. euh, cœur mm. mu bind ko ci euh, donc mu nekk itam ci constitution bi kon day ñetti mbir yoo xam ne moo ko tënk kon lu mel noonu nag bu amee ba noppi it nga gis ne askanu ci seen jëmmi bopp loolu bëgguñu ko donc su ko defee lay am solo rek mooy nga bañ a forcer nga bañ a xëccoo xëccoo ndax boobaa day indi fitna te bu toogaal amaatee fitna ju raw ji nga doon dund ci deuxième mandat bi bu ko raw moom moom lay kii. Mhm. donc kon li mu def nii mooy li nga xam ne mooy li li baax moom la waroon a def. donc. Hmm? waaw mën naa sës. waaye li am solo rek mooy comme forcé wul rek alhamdulilah. Mhm. ndax nit dina sës ba noppi forcé. Mhm. waaw nit ki itam nag lu mënti xew rek maanaam bu defee act bu loo wuute wuute ak moom. doo ko contre contre itam bu defee act bu baax neel baax na. bu defee lu kii nga maanaam loolu mooy nite daal nit bu ngeen àndee bu jàddee ne ko ah du fii kat sëñ bi bu jaaree ci yoon nga ne ko waaw kay noonu la ab paludisme donc loolu la donc taxawaay bi taxawaay la boo xam ne bu rafet la boo xam ne ñëpp moom lañ doon séentu yi tam nit ñi artu nañ ko depuis ay weeri weer nit ñi mayuñu ko fu mu xalaatee won teel ko wan ko ne ko rek troisième mandat nanguwuñu ko fi ndax boo gisee taal na réew yu baree bari kon nag moo tax askanu senegal teel a dànkaafu ko rek xamal ko ne lii du suñ bëgg-bëgg waaye itam moom itam mu dégg leen fexe it ba moom bañ a dugg ci coow euh, ah. xam naa jooju fitna de moom yàlla rek a xam fu muy commencé ak fu muy yem ndax mm-hmm. Ousmane Sonko dafa am popularité te popularité bi itam ndaw ñu ñoo ci ëpp te ndaw ñi ñi ci ëpp amuñu xëy lu dansé lay wax nag. Mm. du sama wax sax waxi benn borom xam-xam moo ko wax dafa wax ne inna sababa. Mm. wal faraaqa wal jidda mufsidatun lil mar'i ayama mafsada mm. nee na moytul ma ndaw lu am doole. am jot. te amul xëy. Ah, seet ko ci yi xew rek maanaam waa seet ko ci yi xew lu amul leneen. amul leneen kooku koleeram kenn attunut ko. waaw kooku koleeram kenn attanul ko kon nag bu fekkee ne ñi ëpp ci euh, dañuy wax ne population bi xëy na mën nga ne 70 pour cent yi ay ndaw lañ. Mm. wala boog minimum 60 pour cent yi wala 65. Mm. li ëpp li am solo rek mooy li ci ëpp ay ndaw lañ daal. Mm. te da gis na ndaw yi moom la ñu àndal. dégg nga mooy seen candidat ku mel noonu jéem koo écarter ci ay élection du xalaat. waaw nit kuy xalaat du def loolu loolu du xalaat moom du xalaat ndax la muy jur maanaam posé woon nu ñu ko tuddee troisième candidat. tëj ko ci kaso boobu laa wax. génn ko ci. Euh, élection yi élection yi danger tëj ko ci kaso moom loolu xal-xalaatul ko man kay li ma wax mooy xañ ko candidat waaye Ousmane Sonko moom entre mur ñu ne mu ngi ci loolu. loolu moom kenn du ko fekkee moom ana Ousmane Sonko ñu ne mu nga kaso ga. maanaam kay nay nay jàmmu rek am mu yeewoo këram. loolu mooy li sedd waaye li ma bëgg wax mooy xañ ko candidature am mu bañ a bokk ci élection yi loolu laa wax ne loolu du jur jàmm laa wax. Mm. loolu laa wax ne dansé bi gënul moyen gënul tuuti que ma que président Macky Sall euh, posé woon troisième candidature. Mm. mbiri Birame Souleye déglu nga ko de ndax nee na euh, lee Aly Ngouille Ndiaye lee Amadou Ba noonu la ko waxee nañu moytu sax di lekkee kër Macky Sall ndax bun nañ leen a posone wax boobu nag jural ko tey ba yoon teg na ko. waaw xam nga nit nag moom nit rek lay doon maanaam al dañuy wax ne alkamaalu wax da maanaam yàlla rek moo am kumóoliya maanaam ak mat mm. ku yàlla rek am na manqué gu gu am ci yow. te insaan mooy ci wet goo ko jëlee rek euh, mooy kuy fàtte euh, ku ku matul ci ci wet yëpp rek boo ko xoolee moo tax sax lu muy dugg foo kenn jàpp ci ngir mu mën a sottal loola waaw li ñu tuddee ku ma nit mënul beddee ko moom kese di dund te dundam gi am njëriñ mënul nekk xam nga faw day ne ci biir nit ñi boo xoolee nit sax ni ko yàlla moo mooñe ay cëram rek dañuy dimbalante ndax bu bëggee gis dara cët euh, bët mooy cër bi organe bi bi bi xool bu bëggee jàpp dara loxo su bëggoon a dox seeti nit tànk mooy participer hmm. su bëggoon a xeeñ ci dara xam xeet gi lu baax la wala bëggoon a mos dara gis nga ko ay cëri doomu aadama dong boo xoolee rek ñoom dañuy jàppalante ci mën a sottal dara. Hmm. noonu itam la nit kon loolu li muy tegtal rek mooy nit dafa am matadi. Hmm. ndax koo xam ne lépp loo bëgg a sottal bu ñu ci jàppal du sotti kon kooku am na matadi. léegi nag nit dafay am accident ci ci wax. ci làmmiñ loolu erreur la erreur de communication la ku ne la mënoon a dal ni mu ko dalee ni la mënoon dal kenn ku nekk waaye li am solo man damaa jàpp ne comme juum na génn publiquement jéggalu warees na ko mën a jéggal xam nga aaya alxuraan bi dafa wax ne bu ñu leen tooñee fay loon kemtulaay lañ leen tooñ waaye nag bu ngeen jéggalee loolee moo gën loolu wax yàlla la bu ngeen jéggalee loola moo gën waxul sax bu buñ leen jéggaloo waaye bu ngeen jéggalee ci seen coobere rek kon nit bu defee njuumte yoo xam ne wóor na ko ne moom mu reconnaître heure bi erreur bi mu def génn publiquement jéggalu defe naa waroon warees na koo mën a mën a jéggal ndax moom nangu na ne moo juum nangu na li mu wax warul koo na wax donte li mu wax c'est grave dëgg la waaye nag comme jéggalu na mu ne soo na ko jéggal rek te yàlla rek tax nag. Mm-hmm. mënees na koo jéggal te yàlla tax nee leen jataay borom xam-xam la parti bu njëkk bi war na ndax doomi soxna la yàlla boole ko ci ëtt bu yaatu boo xam ni sunu borom dénk na leen mbooloo ci li réew mi. Euh, beneen pàcc bi nag pàcc xam-xam la te man fu ma neex laay fëlee pour firndeel leen xam-xam sëñ Fall aay bi nga tiim ba naay la <laughs> alladina yasunuuna <laughs> annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi rajiun daa am wax wax bu ko jiitu nag wastahinu bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa alal xaashihin dafa wax na da ngeen di muñ da ngeen di dimbalante ci muñ ci bu ngeen war a taxawal julli maanaam gar sa bakkan ci boo waree julli nga jog def ko lu jafe la surtout waxtu fajar maanaam nit ki loo mën di jàpp di ko def bu waxtu julli jotee nga ne bërët def ko xam nga sëñ Tuubaa mu ngi wax ci masaalik ne tey boo jokoon rek waxtu bi jotee nga ne bërët fekkee seetaan tënk na la tënk na la nga ne bërët tëb dem jàpp ji boo ñëwee boo boo kabaree day jéem a nekk ci sa xel di la jax-jaxal boo rëccee foofu boo jullee ba noppi mu fexe ba nga naw julli gi te boo ko nawee yàlla yàq ko léegi nag yàlla fii dafa wax ne wastaxinu bi sabri wasalaati na ngeen di na ngeen di dimbalante ci ak muñ ci ak muñ muñ lu jafe la da mm. ngeen ci dimbalante waaye di dimbalante tam ci dénkaane ay julli julli mooy muqul xebaada waaye itam axsamul xebaadaat ni ko yonent bi waxee moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi mu ne nag wa innaha naka lii la kabiratun lu diis la lu jafe la illa alal qaasixini ci lu dul ñi nga xam ne dañoo am ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla mm. ñooñu moom lii woyof na ci ñoom du du du jafe ci ñoom mm. ñu ne na dañ na ko ñooñu mooy ñan ñi ragal yàlla ñooñu mooy ñan mu ne alladina mooy ña nga xam ne yasunoona danañ na annahum naka lay naka ñoom mu laa mulaaxu rabbihim daañu dajeek seen borom mu fay leen waa wa annahum ilayhi raji'un te ci yàlla la ñuy dellu te ci yàlla la ñu donc gis nga aaya boobu. muy la am solo loolu benn brèche la li tax ma dugg foofu mooy damay bëgg yow mi may seetaan xam ni ki may dalal tey te yàgg ko dalal mooy Serigne Fallou Dramé Serigne Fallou Dramé dootuma ko présenté pare naa ci loolu eh, ci ragal yàlla sëñ man dama gis ni. ñëw naa léegi fekk fi enveloppe yu bari sëñ bi mooy defal boppam mooy àmbale mooy sëñ bi yi nga doon àmbale yii ci la bokk yi ñu tiim nii yi ñu tiim nii xaatim bi ci lu muy doon. waaw xaatim bi de mel ne daan na daan na génn xay na dañ koo gëj a gëj liggéey. waaw ci ci ci ubbeeku lay dox ak kaaraange. ndax léeg-léeg nit ñi dangay gis kuy am di am ba ci yàgg am amam taxaw. waaw ñu ne loolu lépp day am tëju ràpp loo daan am dootoo ko am li nga daan gañe dootoo ko gañe bu fekkee da nga daan xëccu ay ay marché wala yu mel noonu di gañe di ci am di ci gañe sax yooyu yëpp dangay gis na léegi day jafe ci yow waaw mënatoo ko am yooyu yëpp day day am bu fekkee da ngaa doonoon itam nit ku am sens ci koo xam ne loo dugg rek mu yomb waaw loo wuti itam kenn du la gàntal nit ku am wërsëg nga jékki-jékki rek tëju day dal nit nag mm-hmm. léegi nag yi koy tëj mën naa bari waaye incha allahu taala bu yàlla dogalee bu jokkook nun ba ñu xoolal ko ba gis na lii ci li ko war a ubbi la bokk su boobaa ñu kii ko ndax itam ñëw rek yor xaalisam nga jox ko. déedéet loolu ab sëriñ bu bu loolu sëriñ du ko def moom fooguma ko. nit ki moom balaa nga koy jox dara da nga koy seetal. ndax amaane la ko tëj dong boo ko tegtalee ab sarax moom mu dem defal ko boppam rek. mbirum mbirum déedéet doo ko du la gis sax doo ko du la maanaam du jotee ak yow dara. Mm-hmm. da nga koy xoolal gis na sarax sàngam moo koy ubbi rek nga tegtal ko ko. Mm. wala nga xoolal gis na turu yàlla moo mën ci moom dara. Mm. wala itam mbir mi mën naa garaaf ba yegg foo xam ne foo nga fatul ko ñetti fan ça dépend wala juróom-ñaari fan yëpp day am mm. waaw waaye bu fekkee ne tëju bi amul dara xay na lu ci du lu garaaf lool su boobaa dañ koy jox cangat yi mu sangoo ko incha allah juróom-ñaari fan kenn mënul tee ba du ubbeeku waaye ubbeeku itam day ànd ak kaaraange ndax boo xoolee protection boo xoolee ni ñu ko mooñee mm. rek nga xam ko ndax boo xoolee fii ci kaw inna hasal rizquna ma lahu moo ci nekk boo xoolee ci suuf o yansuruka llahu nasran asisan te ñaari aay bu ñu la ko firiloon rek ci yow mi dégg arab mm. di nga xam ne li yàlla jubloo wax lii mm. la waat na yàlla mooy waat de mooy giñ mm. la risqu naa mooy sunu wërsëg woo xam ne maa lahu min nafaadin kenn mënu ko jeexal du jeex wërsëgu yàlla ji mënul jeex yàlla nee na ci hadisul xudsi yu sama jaam yëpp bu ñu daje woon ci benn bërëb ñoom ñëpp di ma laajandoor ñoom ñëpp ku ne mën naa koo jox ba mu na doyal na ba mu na dooy na ba waxal yàlla boppam ne ko doy na sëkk li ma jox géejal naa te yàlla nee na nag loolu wàññiwul ci am amu yàlla lu dul rek nga jël bën bënu puso dugal ko ci géej seppi ko la cay toq ci ndox noonu ànd ak puso bi dem loolu mooy lim sedd la jaam ñi jëmmi ndox ma des ci géej gi nag mooy mayi sunu borom yi wa in taxudu nixmatallaahi laa taxsuha yàlla moo ko wax mu ne bu ngeen di jéem a lim wala takk mayu yàlla yi mënu leen koo takk xéwalu yàlla yi amul yemul fenn kon aay bi bu ñu la ko ubbi féeruloon rek da koy daal di xam wa yansurka laahu nasran asiisan yàlla moo ko waxoon yonent bi mooy yàlla dina la dimbale dimbale gu bér kon gis nga ñaari aay yooyu yaa ngi ci déggee ndimbalu yàlla ak ubbeeku maanaam ci wàllu am am wërsëg boo jëlee côté bii da ngay gis lan wala yang sama ko mi na naas yàllaa ko mi na naas yàlla moo ko waxoon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo lay muusal ci ay nit ñi ndax lépp lu yàlla bind rek am na ay xalaa xalaayiq yëpp moo tax xulu ansu biir bi falax min sari maa xalaq mm-hmm. maa googu lépp lay labal nit dafa am ay jinne am ko ndox suuf yeeg yëpp am ay moo tax di ci muus lu baax walaa yus ma ko mu ne naa fii mu ne fii lu mu fi wax bu na xasbunallahu wa ni'mal wakiilu wakiilu waa mooy ñaan bi nga xam ne ci njëlbeenu at mi moom la jullit bu bu ne war a ñaan ngir yaakaar yàlla mu di ko aar ci lépp gis nga kon maanaam bu ñu la ko firilee ne rek yàq bi rek da ngay daal di xam ne lii ci nangam lay dox donc muy lu dooy waar nag bokkul nag allahu muhammad yi nga xam ne moom lañ dugal ci kër yi ak xadadul xalaayiq lii la ñu tuddee xadadul xalaayiq lii mooy li mu doomu aadama yi dund ci kaw suuf yëpp mu ngi nii. seen nombre mu ngi nii mu ngi nii. population lépp mu ngi nii laa wax. waaw lii ci ko xam-xam nañ ko. 5995 yi. secret bu doy waar la waaw donc moo tax kenn du ko du ko du ko du ko du ko sango te doo am ubbeeku. moom noo koy waaw waaw sangu bi sangu rek la. da nga koy sangoo juróom-ñaari fan rek. Mhm. Mhm. waa xam nga du lépp rek la mën a mënees wax nag ci kii bi waaw. xam nga Euh, teggin wi jekk liggéey bi jaar yoon te koy jëfandikoo yàq ko ba noppi jafe ni sëriñ bi ko jox li ko ñun ku ñuy jox lu looy sangoo lu ne rek daañ la wax condition yi ci ci aju dañ la wax defee ko nii ak nii ak nii léegi-léegi itam ñu jox la cangat yoo xam day ànd ak wérd nga xam ne dama naan la saa yoo sangoo ba noppi woo ma téléphone ne ma sangu naa ma def wérd bi muy benn mm-hmm. soo sanguwaatee woo ma ne ma sangu naa muy ñaareelu fan bi ma def wérd bi am na sangu yoo xam ne fan yu mat waaw juróomi fan yu mat mm-hmm. waaye ci càngat yoo xam ne juróom-ñaari fan lay def yii fukki fan ak ñaar yii juróomi fan nombre bés yi am na ci solo wala. am na ci solo waaw loolu day dépendre rek ci nit ki lan nga koy defal li nga koy defal ak euh, xam nga ni ma ko mën a tuddee euh, ki soxla ki soxla ki soxla lan ci misaal bu ma ko mën a joxe. ki nga xam ne dañuy wax woote benn apport d'offre fa xawma lañ koy wax. waaw mu bëgg a gañe waaw xam nga kook bokkul ak euh, xëy na kuy lijjanti benn affaire boo xam ne ab papier la bu xam ne mën naa am jëfewul daal ci kii bi waaw ah, donc waaw yu mel noonu donc waaw donc yooyu xam nga bokkul maanaam degré yi ñoo bokkul nit kii li muy xëcci dayo bi ak na mu toll ak la mu koy apporteel donc loolu mooy indi différence yi ak wuute yi. Mm-hmm. donc loolu la waaw. Mm-hmm. si mën naa dem ba ba ba weer sax. ba waaw waaye nag loolu ñu ko mën a topp bariwul. ndax nit ñi it am na ci xam dañoo gaaw a taay nit ñi moom dañoo bëgg jooni jooni. léegi dama si li ñu xewal mooy bind xaatim boo xam ne kayit gi dina met 4 mètres ce am na ci solo. secret wala sirru. Ah, am na ci solo am na ci solo waaw kenn wax na amul ci solo ndax. Euh, ça dépend ci liñ ciy bind rek euh, ndax léeg-léeg euh, nga bind loo xam ne rëyaay bi mënoon ko ko def ci benn këyit boo xam ne du du du paase lii ab xaatim xam nga boo bi ma bindoon fii ab musalasul xasaal yi du fees lii mm-hmm. du fees lii mu musalasul xasaal yi bu mm-hmm. ma ko bindoon fii ab musalas du fees lii mm-hmm. te nit ki boo ko jëfandikoo aajoom faju waaye nag ci pas-pas mën nga koo jox nit ki nii mu tiim ko mu tuuteeg moom lool affaire bi yàqu parce que dès mu yëg ko yëg na lii mënatu koo jariñ rek loolu day day yàqu. waaw mu ah, ah, ngoog donc loolu. karaamatul ay nii loolu mooy. dama sëñ Fall dama gis ni ñi ngay tey boo ñëwee sax ba siñ Fall lu bërëb bi mu ñaan yàlla sax benn décor bu simple la am. mooy soxla ay butéel yu ngande fii ay bopp jasit fee ay bopp xar fële ba ci. da ko war a moytu ndax am na lool bu boo ci xasee yegg day da ngay xaw a niru ab xërëm ak yooyu te te te jullit moom dafa war a set ci jëmm sa set ci barab set ci lépp rek xam nga Sëñ Tuubaa mu ngi wax ci silkul jawaahir di wax ne bokk na ci sabab yi tax nit am wërsëg mooy ngay fexe ba sa barab di set sa yëreb di laab sa jëmm di laab yooyu dafa bokk ci ci ci sabab sabab yi tax nit ki wërsëg di ko yomb loolu Sëñ Tuubaa wax na ko ci silkul jawaahir waaw waaye am na loo xam ne daanaka njabar la jabar la sax lañ ko mën a tuddee ndax dugg ci néeg lu na nga fekk fa ñu samp ko bopp xar ak bopp bëy ak bopp tànk yooyu waaw xam nga loolu nag mooy ñàkk wóolu yàlla rek mm-hmm. waaw waaye alxuraan amul lu mënul mm-hmm. garab yi itam nga xam ne ay palant la yàlla saxal ko fi garab gu ci nekk am na ci lu muy dox am na amul lu mu mënul donc waaye am na loo xam ne boo ci duggee rek yaa ngi dugg ci cirque mooy bokkaale mm-hmm. te su boobaa nag bu ëllëgee doo fayeeku xam nga ni baax na de neex na lool te boo ëllëgee yàlla danaan ana ñu doon bokkaale ñu ne ñu ngi nii yàlla na leen ah yéen dem leen ca ña ngeen doon bokkaaleel ngir ñoom ñu fay leen man waruma leen di fay. Hmm. te loolu jullit bu ne war na di ko bàyyi xel. Hmm. loolu nag jàng nit di ko xam. Hmm. wala ngay taxaw kuy jàng wala ngay laaj. te yaa ngi ci yaa ngi ci libération yi comme chaque jour lépp rek yaa koy yaa koy defal ne laa mën sëñ Fallou kañ la am secrétaire. Ah, moom koy day na waar <laughs> waaw day am loo xam ne nag euh, ni ma la ko doon waxee rek daanaka euh, sa bopp rek moo la ciy doy ndax sell gi nga ciy bëgg ak jaar gi nga bëgg mu jaar ko yoon mooy tax daanaka doo ci wóolu kenn ndax mënees na ci juum ci defin ak ci dara rek mu mu indi ay njuumte lu dul xanaa programme yi muy jox gone ñi di ko bind mm-hmm. ndax ñoom xam nañu ko comme alxuraan la mm-hmm. te ñoo leen ko jàngal ñu wattu ko programme nga leen di jox rek bindal ma lii bindal ma lii ñu bind donc lool loolu la waaye bu desee nag ci yeneen yi nga xam ne ñun ñoo ko mën a dugal su boobaa loolu moom ñun rek moo ko ñoo ko mën a defal suñu bopp. suñu wàllu ba ci sarax yeeg wàcce kaamil yi muy def ak da koy jaral jóge fii dem ba daaru pakacar gone yu toog wàcceel nit ki kaamil bi war a ànd ak la mu ko war a jox ak génne sarax saak dox taamu googu. waaw mooy loolu rek man damay bëgg lépp lu may defal nit ki maanaam woote ñi defal ma ci daf ma ci dul doy may bëgg rek ma am si certitude na lii ma war a defal nit ki teewee naa ko ñu def ko ci sama kanam wala ma def ko sama loxol bopp ba mu wóor mën a def naa ko donc loolu moom mooy li ma doy. te it euh, boo dee jàng li ñu tuddee euh, droit de affaires defe naa la euh, xam nga boo demoon ci bitig bi ne ko am jaay ma am jaay ma tàngal kese dès que mu jël juróomi dërëm yi rek la fekk tegul tàngal ci sa loxo loolu contrat la. fu mu ne loolu lu muy ñàkk ñàkk solo ab contrat la. nit kii itam bu la jotee téléphone ba wax la yitteem ba noppi ba ngeen wa yeewu ci kàddu. loolu contrat la. contrat bi mooy la feeg li taxal mu woote la parewul matul aajam fajul contrat bi jeexagul. waaw donc loolu digg naa dëgg mu ngi noonu yow mi nga xam ne rek euh, yaa may seetanteem itte ji euh, man buur maa wax te li may wax it lu wér la te ku weddi it wax dëgg yàlla ñëwal xool. moo xam àndandoo sonal la ngay jigéen wala ngay góor moo xam jigéen ju taxaw wala rab la yàqal yàq say mbir wala ca topp la nga amoon te amatoo daan man te manatoo wala ci wàllu ngóora walla yow mi nga xam da bëgg seetlu seet gu leer a leer a leer a leer wala yow mi nga xam da ngay toppatoo ay problème yi këyit yow mi nga xamante ne que bëgg nga samp sa business mu dox wool sëñ Fall Dramé ci numéro yi incha allahu euh, doo ko rëccu suñu mbokk Gambien yi nag ñu ngi leen nuyu baax baax ndax gis nañu taxawaay bu rafet bi ngeen am seen diggante ak sëriñ bi vraiment moo xam ñu nekk Suède wala ñu nekk Germany wala suñu mbokk Gambien yi nekk ba Angleterre sëñ Fall Dramé ngi nii rek comme ni ma koy waxee euh, ci jamono bi ne sëñ bi gaa ñuy def baccalauréat nag ñëw nañu la ci ay fan. seen ndey yóbbanti nañ ma. naka lañ mën a dimbalee xale yi bopp. waaw xale yi de ñoom samay jarbaat lañ. ñoom ñëpp waa te bac dafa métti <laughs> loolu ñun xam nañ ci dara. <laughs> dafa métti dafa am pression tamit. ci ki koy def ak itam ay mbokkam. ndax xam nga dafa nekk benn étape boo xam ne. Mm-hmm. Euh, xam nga mooy diplôme diplôme bi lay dugal université. Mm-hmm. donc loolu tax moom xam nga nit mën na di def def di def teesu doctorat am daanaka kenn du ko yëg. Hmm. waaye nit moom buy def euh, bac ci famille ñëpp koy yëg. Hmm. waaw su ko defee nag ku ne naan day def bac day def bac loolu rek cat lay doon. Hmm. donc kon foo ay ñaan di ci am waaye incha allahu taala képp koo xam ne mu ngi ci yu mel noonu rek. incha allah bu ñu jokkee rek incha allahu taala ba ñu xoolal ko bu fekkee sarax bu mu war a def la ñu tegtal ko ko mu def ko xëy na soree gu amul mën leen di jox ay tegtal wala lu ñu leen mën a yónnee incha allah yëpp rek mën naa nekk waaye li ma ci maye mooy eh, ku ko ci mën rek dangay wut eh, rafaanaahu makaanan aliyan hmm. eh, nga bind ko ci benn këyit bu ndaw lu tuuti lay doon rek da ngay dagg tuuti rek bind ci rafaanaahu makaanan aliyan bind bu ndaw su ko defee am na foo mën a ubbee big bi nii waaw su ko defee nga laxas ko ci jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi ci biir waaw après après après nga tëj ko waa hmm. yàlla mën na cee def barke waaw warafanaa makkaananaa leen guddul warafanaa hmm. makkaananaa leen hmm. nga ciy bind rek nga nga xool ba xam incha allah. <laughs> sëñ Ba looy tàggoo. xanaa tàggoo gi de mooy li ñu ubbi woon rek te waxtu bu nekk ma di ko ñaan muy jàmm ndax damay wax ne jàmm mooy support lépp loo bëgg a tabax ci àddina lu baax kon jàmm moom moom la ñuy ñaan naka jekk waaye moom la ñuy wéy di ko ñaan. di ñaan yàlla mu defal ko ñëpp muy jaaxle itam ak lu mën di sabab seen jaaxle rek ñoo ngi ñaan yàlla mu tegg leen ko ak fépp buñ mën di nekk ci pàkki suuf yi di leen sant yi itam di leen gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.